mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan di mu déglu ci sunu sit bi ñuy wax sunu acte ñu ànd ak yéen ci naafilay weeru koor bi tey ñu toll ci guddig ñaar fukkeel ak juróom guddig ñaar fukkeel ak juróom danañ ci guddig ñaar fukkeel ak juróom danañ ci julli juróom ñetti rakka rakka bu nekk ñu jàng ci faatiya ak xul huwallaahu ñeenti yoon ñu baamtul leen ko